ñi àndaat ñu ñu leen dégg ñu leen jaar li nga xam ne ñu sax ñu fi dégg ñu nga jógee ci baax na nga def lool kon nag moom dëgg yàlla gis la lool bu dal suñu kaw waaye nag loolu suñu borom nag moom suñu borom moom bu soxlaa moom jàmm dafay xaar parce que moo ko moo moo ko moom ala la lu gën tey ñoom. nag mënuñoo bañ a métti. parce que misaal nag kenn loolu ci ñun bokk ci nekk na koo xam ne nag mu ràññeewoon na suñu biir. am na ci personnalité am ay jikko bi nga xam ne daal wax dëgg yàlla nit am rek nit ñu la bàyyi xel ci parce que feebar bi dëgg yàlla xaw na ko sooxaale tuuti di ñu tam ak personnalité moo tax déggoo ko nit mu mën na koo koy dégg fu mu sax kon nag ay waajuram ko yegg ci loolu parce que dëgg yàlla ñu koy ñu koy ñu koy ñaanal yàlla wala mu tëdd ñàkk parce que yàlla arrière moo xam na nga avancé yàlla bu yàlla toppee dara lépp loo xam ne ay njuumte wala ñu mën ko yàlla fulal ko toppee dara waaye daal ñu koy jaale lu mën ko yàlla jaale ñu na seen kaw ñu ñu ko xamee ñu ko xamee doon jëflante ak ñoom moom bokk suñu biir ñeen it noonu ngeen doon jëflante ak moom xam na xam ko bu a baax a baax man damay wax ni man Moussa bokk na ci li ma def mbër Moussa mu njëkk daan bopp xool ko rek Mamadou Zallo mu tuuti rek mu ne ah kii dafa benn boyal naa ko war mu ñëw mu daan ma jëli bu rëy ma ne à partir de tey boobu dootuma ci àll bi bu mu def ci moo tax dëgg yàlla amoon dañuy wax ne làmb mën a bëre taxul làmb fay parce que làmb am na ci loo xam ne ñu suñu boroon am ci loo xam ne wërsëgal ñu dàq football ci Sénégal lekk ñu xaalis làmb ji ñu ci dàqoon a bëre lekk ñu xaalis làmb suñu borom la suñu borom moo ci dugal waaye Moussa bokkoon na mbër yi dàq bëri ci làmb ci cal ci calcul ci tactique ci soo bëree démarche da ko doon xoolal suñu saxaar taxawaay waaye nag euh, ñu ngi koy jaale mbokk yëpp ma ko baale suuf yëpp jaaree suuf xëy na ànd ak parce que tamit mosuñu ma bàyyi fu ma taxawal ci wàllu jóg. pour pour pour pour mbër. ñu ne sama ma doon rek moo doon ko def mbër yi benn bopp la. nous sommes des adversaires. mais tey am loo xam ne bu ne li fi teewal li fi tax ñu daje fi yàgg na dajale ay nit mooy dëgg moo wóor ku ci nekk nag jamono ji na nga tax defar sa toogaay parce que gars yi dañuy yaakaar ni faatu dem àllaaxira moom paa yu màggee dee fay dem dee léegi amul xale amul mag kon boog nañu waajal suñu bopp defar suñu toogaay képp ku ci yàlla boole sa nawle ak liggéey seen diggante na ngeen ko rafetal na ngeen séq jàmm na ngeen rafetal seen diggante parce que di dox ci loo xam ne euh, ci lu neex yàlla parce que tamit loo xam ne day jékki-jékki na xas sa kaw ak lu mu la fekk ngay def du la jox temps dara sax boo demee naan da ngay dem jëli yëre wala kon boog war na nga war na war nga di dafa defaraat sa toogaay di rafetal sa diggante ak ak ak ku la yàlla booleel moo tax yàlla yonent bi naan laata baax a du walaata a du walaata daaba a ne a baax a du bàyyi a di bañante walaata xaasa du a leen di ñaanante walaata daaba du bu leen mun a wëkku ñu nekk ñen ibadallahi di ay jaamu yàlla ak wanan di ay mbokk al muslim ak muslim jullitee bokkam te léegi li xew léegi ken xamul mu toll wanente ay ay lu weer nit xamal nit dara wili pande ko nga ne jullit la te yonent bi wax ci xadis na sittatun tuhbitul amal mu ne am na juróom benn jikko yoo xam ne tuhbitu boo ci amee benn ak day day ful say say jëf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne sittatun jikko tukbitu dafay effacer sa yiw al amal mooy sa ay jëf ñu ne rasulallah jikko yooyu ban la yan la mu ne al istixaana bu ñu bil xalqi mooy nit ki nga xam ne day xool lu bon ci nit mu koy wili pande jikko boobu boo ko amee mënuloo jaamu yàlla lu yàlla nangu mun a waxas dëgg xal bi borom xol bu wow mooy ku bon xol waxu bu duniyaa ak nit ku bëgg àddina waxi latil xayaa yi ak nit ku amul kersa ak ñàkk kersa gi nu mu loo xamal nit weer ak nit ku bëri mébét ak wa zaalimun laa yantahi yonent bi nee na juróom benn jikko yi tux bitu dana effacé al amalu mooy say jëf lépp loo jëfal yàlla ci lu baax yàlla neen da koy fël effacé ko mu set rek kon yàlla ci yàlla musal ñuy defaraat suñu toogaay yi di nëbbal nëbbalante ay ayib loo xam ni bon ci nit ñu nëbbal ko ko parce que chaque jour yàlla chaque jour nga def yàlla loo xam ne tey bu tegoon ci caméra doon na dara dara ci bëccëg te yàlla da lay suturaal kon lu ñuy suturaalante loo xam ci la nit boo gisee nit muy def naka suuf ko balaa nga am kontaan nga stati ko balaa nga am lu ma nga dugal ko YouTube wa yaaju billah yàlla nañu yàlla musal